ngay ñëw ci loolu sinon aussi ñu ñëw ci altercation yi nga xamante ne nii jot nañ ko fa gis démb euh, mu nekk ay militants yu Pastef aussi ak euh, yenn ci ay leaders yu euh, sàmm sa kàddu te loolu mu ngi xew ci buntu tribunal bi aussi. bon bu dee ci convoi bi. yoon moom da tere yoon daf ne. Mhm. mooy article 96 du code pénal daf ne. Mhm. lépp luy daje. ci foo xamante ni voie publique la mu dañ koy tere mu dem mu ne lii sax cortège euh, taala oto toppalante cortège la moo tax moo taxoon boo fi taalee sa oto yokk sa musique walla nga yore sa oto pin pain doo policier doo gendarme doo cortège u état doo ambulance policier bu ñëwee lay taxawloo après dañu lay droité e eh, wàccal indi sa permis après da lay da lay parce que da ko tere Bougane arrêté nañ ko ci nguuru Macky Sall jamono jooju parce que dafay def cortège muy taal son ñu ne ko fayal son bi sinon doo avancé man gis naa ko plusieurs au moins ñaari yoon mu concerne ko parce que yoon da ko tere dafa na léegi tout les les les cortèges les convois ci réunions yi loolu yëpp soo koy def da am lu ñu tuddee c'est soumis à une déclaration au préalable c'est soumis à une déclaration au préalable maanaam da nga koy yëgal nit ki. war am te ki nga koy yëgal du man nga koy yëgal. déclaration mooy l'autorité. l'autorité administrative ça dépend maintenant fi nga jëm boo demee ci région gouverneur bi soo demee ci département le préfet sooy dem ci euh, sous préfet arrondissement. Mhm. sous préfet. nii la war a demee moo taxoon man jour bi ma toogee fii ma ne. Euh, ñi xam de ñu xamoon du du yoon wax Sonko bu mu jógee Casamance Ziguinchor naa damay dem caravane de la liberté yàlla xam na ne xam nga ne nii du yegg mënul yegg moo tax Antoine Diome bu mu génnee naan dans un état euh, sérieux responsable du bàyyi ay nit def cortège ay nit di dee jarul saagatu nit di dee c'est-à-dire warul soo commencé bay naan bay nit di dee hmm. warul commencé c'est-à-dire que moom xam na ko Sonko moo gën a xam ne lii lu yegg. moo ko provoqué waaw. léegi moom bu mu jógee Ziguinchor mu am xam nga def ko wax. Mhm. mais boo départ rek yéene bi mat na kook danga ko war a jàpp rek arrêté ko ne ko est ce que da ngay arrêté doo nga jàpp yóbbu ci kaso bi wala nga def ko garde à vue yaay xoolee tànn léegi ñoom dañ ko arrêté yóbbu ko cité kër góor tëj ko fa pendant xaw ma 55 jours <laughs> ko def mais yoon dafa ne mais dafa violé yoon ku violé yoon da nga teg mu violé yoon nga dem téye ko ci kër gi 55 jours yoon waxul loolu de yoon waxul lool yoon daf ne soo jàppee nit gis nga ni ñu ko jàppee woon ci côté euh, àll boobu hmm. du côté Tamba procureur Tamba Kaolack wala Tamba lañ ko waroon yóbbu hmm. kooku moo war a décider du ministre de l'Intérieur moo war a wax de procureur moo war a décider ci Sonko est-ce dañ koy libérer wala dañ koy déglu ci lu mu def violation du code pénal article 96 loolu la waroon demee mais fii Sénégal xam nga moom yaa bëri am na fi tegul ci yoon parce que da appliqué da doon dafa doon jël ay décision di sóoraale mbooloo. boobu tamit contumace bi mi ngi nekk en cours quoi bu ñu ko jàppoon contumace bi day day loolu tamit il nga xam doon jouer le jeu. Ah, mais mais mais non non non demal demal. non non mais li nga jëmmi Sonko. non non waxuñu loolu quoi damay wax ci scénario boobu rek biaisé ko. waaw léegi yoon wala luy yoon. léegi Sonko defoon na ko léegi nag loolu. loolu Sonko même bu ko defee. Hmm. loolu du yoon. du yoon loolu Sonko waru ko def ku ko mën a def aussi du yoon. ku noo mën a tudd. yoon léegi nag euh, man li am Tamba loolu bugguma man loolu loolu may àtte mais rafetlu wu ma ñëwoo leaderu jàmbur gëmuloo ko ñëwoo pour compatir parce que loo mën a wax ñoom am nañ na xar bu dee da ngay di ñaawalaate ñaawalaate bi rek tooñ la. amuloo fa place sëñ bi amuloo fa place cest à di man li may xeebal sama di sama verre bu tojee. may ñëw di ramasser xott yi nga xeebal ma ko même bu yow nga ne yow tekkul dara mais su dee sama naxar la waroo ñëw naan massa kii ñaw gi maa la ko yéene yow tamit boo ñëwee ñu jàpp leaderu jàmbur on est en politique bu boo demee ñoo ñu ko gëm ñu bëgg ne Bougane mooy seen leader bu ñu demee foofu yow éviter di créer li ñu tuddee ay jotalante parce que loolu boo ko defee daa ngi ci provocation nga ñëw kii di jooy. Euh, parce que dañ ko jàpp. nga ne non Sonko Sonko Sonko c'est-à-dire que loolu tooñ la. c'est comme tey mënoo comprendre tey Sonko nekk ci convoi di dem euh, tribunal. Mm. ay waa APR taxaw fële naa maa kii waaw di force reste à la loi mais sëriñ bi loolu lan la mais la provocation la sëriñ bi. mënoo ko nangu ci jamono jooju xel mënu ko nangu parce que bu amoon ay nit dinañ dee loolu moom xam ngeen ko parce que man fekkee naa convoi Sonko di jógee këram di dem. ñoo ñu nga xamante ne dañoo pare woon pour jàkkaarloo takkireer kooku bu amee ay civil di woote tamit ay gars yi dañuy rayante c'est-à-dire que loolu bu dee mënul mënul nekk lee moo warul mën a nekk ku gëmul bugaan bu ñu wooyee bugaan pour ñu koy déglu dogal sa kër sëñ bi wala nga dem liggéeyi sax dama am liggéey loolu am liggéey <laughs> yow doo chômeur dama liggéey nga bàyyi nit yi bugaan am nañu ko gëm yow gëmuloo ko bàyyil jàmbur mu dem wuy ji procureur en di yow yaay def justice justice kenn moo koy mooy mooy décider ku ko woo bu mu décider lan la da danoo ñu ko ànd ak ñu jógee Dakar soutenir Bouga lu ñu def danoo jëlaat seen oto mhm. eh bu dee mënoo ko supporter. yow yow di kii bi ngay wax. cest c'est de la provocation ah, c'est de la provocation. te provocation boobu. déet provocation dafa am lu mën a jur sëñ bi. non non d'accord d'accord naa li nga wax. voilà mais politique politique aussi warul yàq dafa waaw ah mais waxal ci essence bi mooy Bougane est-ce que. est-ce que mu doon def interprétage inter. mais mais dafa ñëw ci population. man <laughs> ma toogee la ah li nga xamante ne ni moo xew démb. parce gis nañ ba ay menaces sax daal di ci tegu ñuy joxante rendez-vous. loolu la ko faa ko loolu euh, ñëwaat. te bu a jur baaxul la li ñu ah, gis provocation la waaw les provocations léegi loolu loolu baaxul too baaxul je suis parfaitement d'accord su doon man maay waa passé vraiment su dee jàpp mm. sama leader damay toog sama kër di déglu rajo bi. moo dëgg de mooy dëgg moom loolu moom mooy dëgg te di loolu moom je suis parfaitement d' accord. Ah, wax leen waa kii lancer le message bu waa. léegi léegi euh, jeunesse jeunesse patriotique Pastef. bu Louga bu Kolda. bu Kolda bu Tamba jàppuñu seen leader. Hmm. jàppuñu seen i dirigeant. amu leen lenn lu ngeen di def ci tribunal ba toog leen seen i kër. ñi liggéey nañ liggéey ñi liggéey nañ dem naan ataaya baa ñu dem bay. wax leen le 30 yaa ngi dégg wax ji mu ne. pour le 30 wax pour le 30 moo tax may wax noonu lu weesu. wax naa ko yéen waa patriote yi. le 30 bu ñuy jugé Bougane bu leen dem foofu di perturber ñi liggéey ñu liggéey ñi ñi amul liggéey nañu dem naa ni ataaya déglu seen rajo moo gën yee fitna bàyyi bàyyi yee fitna baaxul mhm. bàyyi nu mu tuddati bàyyi bàyyi tooñ tooñ baaxul yoon def liggéeyam mhm. yoon def liggéeyam comme il faut saw da ngay approuvé loolu d'accord maak Thioune mais d'accord nga ak jëwri le d'accord naa pour apaiser mais nag droit lañu wax te kii c'est un juriste <laughs> tribunal public la kum neex demal xam nga yéen mënuma leen ne buggaan xam nga contradiction bi leen laxas loolu sax du ko wax cuun parce que cuun kii mais ci côté ñi foofu la mbir mi neexee. mais est-ce que tribunal nekk na lie boo xamante ne nii dañ fa war a ñëw. dajaloo fa dama ne. di def lu yéen la war a nekk alkaati ñoo ko war a gàntal. xam nga lu may bañ nit di fajal moromam boppam comme ni nga xamee ne noonu la euh, service de sécurité Bart yi ma jàpp ne ñoom la parce que ñoom laa gis ñoom ñi ma xàmmee ñoom laa ko teg. ñuy taxaw di fajal seen bopp non non dama ne gis naa ñu yor yat ba jàpp kenn ci kii di def loolu man agent de sécurité da ngay sécuriser sa VIP yi waroo mel ni élément Barth wala